bu wéer yéer yéer moom nga ko doon wax léegi rek ci tàkkusaan doon wax ne yonente yàlla Muusa alayhi salaam moom nitam ña dañ koo xam ne ko demal yàgg sa boroom ngeen xeex ñun ñoo ngi toog fii di ñu dem fenn waaye Sëriñ Tuubaa nag moom moom ci jëmmi boppam moom moo ñu waxal boppam nañu toog leen fii xaaral ma ma dem liggéey yi su ma dikkee ngeen añ ba mu demee itam liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala liggéey boo xam ne lu nekk rek jànkoon ne ko lu nekk rek daj na ko ci liggéey boobee lu nekk rek jànkoonte naan moom ci liggéey boobee daj na ko ci ci ay nattu ak ay tartar ba mu demee ba nga xam ne dellu siwaat nañ ko dellu jëlewaat ko fi yóbbu ko gànnaar foofa it bari woon loolu moom it ay jànkonte ba ni nga xamee nag ni la suñu boroom subhaanahu wa taala ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dégg ci ab liggéeyam bu wér daal di koy gërëm gërëm lu mat sëkk ci baatin ak ci saayir nangoo ko ab liggéeyam sant ko gërëm ko daal di koy fay nag loo xam ne nii ay ngëneel yu bari la ay yiw yu bari la ay leer yu baree baree bari la doon naa leeral ne bokk na ca la ca gën a am solo ca pay yooyee moom mooy dëkkub Tuubaa maa ngi doon leeral itam ni nga xam ne nii njëkk loolu lépp fekkul na sëriñ bi wurul suuf si ba gis ko waaye booba taxagul woon Tuubaa sotteegum dëgg dëgg dëgg ndax booba suuf si feeñ na ak garab yi waaye desoon na loo xam ne nii mbirum baatin la ay fàggu téef yu bari yoo xam ne sëriñ bi daf ne koy fàggul ci Tuubaa Tuubaa joo xam ne noonu ma ko doon waxe du suuf si ak garab yi waaye ak la mu biir xole murit yi ak ci seeni xel ak ci seeni roow di tuubaa boo xam ne baytullaahil xaraam ci boppam sëriñ bi bind na wax ne suñu boroom bind na dogal na ne baytullaahil xaraam suñu boroom dana jox ndigal malaayika yi ngir ñu yëkkati ko jëme ko tuubaa te bu boobaa rasulullah yi lay nekk ci biir Tuubaa it dellu dellu nekkaat ak garab bu nekk ca digg aljanna loolu lépp ay mbir yu xóot la yoo xam ne yombut a leeral waaye ay fàgguteef la yu kawe yoo xam ne njëggalan ca biir yërmandeeg ca biir muccëg ca biir xéewalan ca biir ñeel bépp murit ñeel bépp taalibe maa ngi doon misaal itam noonu nga xam ne yenent yàlla Muusa ba mu gungee bani Israël ba mu fàggulee suuf sa gungee bani Israël bañ dem ba di ko séen booba la ko suñ boroom nag ne ko fii ngay yem waaye suuf si moom sa tànk du ci du ci tege maanaam doo dem doon ko fay dëkk doon ko fay nekk ci coobaree boppam may na ko rek mu taxaw ca kaw montagne ma di ko séen waaye nag doonul fu muy dugg di fa dëkk di fa nekk di fa toog nga xam ne foofu la ko suñu borom jële yóbbu loola itam moo feeñaat ci diggante sëriñ bi ak Touba nga xam ne ba mu ko fàggoo ba mu àgg booba njaboot gi la ko doon fàggul ak taalibe yi ba mu àggee itam gis ngeen ni nga xamee ne nii noon yi ci coobaree suñu borom ni lañ ko fi jëlee woon yóbbu ba niñ ko fi jëleewaat yóbbu Murtani ba niñ ko fi jëleewaat yóbbu ca yéen ba niñ ko fi jëleewaat yóbbu jaareel nga xam ne ci saayir suuf si fàgg na ko mu lew ko doom ba moom ko ci baatin ak ci saayir fàggul ko murid yi ak taalibe yi waaye doonu woon ku fiy dëkk ci saayir mbaa mu fiy nekk ci saayir nga xam ne kon loolu lépp boo xoolee ay fàggu téef la yoo xam ne taalibe yi rek ñoom la ko doon fàggu kon nag moom ci jëmmi boppam bu fekkee day sant suñ borom ca lam doon fàggu te suñ borom may ko ko daal lu ñuy woo ci cant googee ñu war cee sawar bu baax a baax a ngir santale ko suñ borom mi nga xam ne lam doon fàggu ca moom sax ñun taalibe yi la ko doon fàggul te ba mu ca jotee it ci suñuy loxo la ko teg ñun taalibe yi ci laa doon waxee ne kon cant googu waruñu woon a nekk sax bañ ñu koy defloo ñun ñoo ko waroon di defal suñu bopp suñu toll rawatina nag bi ñu ci amee digal kon bis la boo xam ne dañ ko gën a téye bu baax gën koo jàpp gën koo fonk bu baax a baax bis la boo xam ne it ñu ko daan dundale mooy nii rek jàng ci alquraanul karim yu bari jàng ci ay xasiida def ci ay xitma ak ay addiya ak ay bernde loola mooy li nga xam ne it moom ngeen ci taxawe kon lépp tàmbulee na ci ndigal yem ci ndigal ndax loolu rek moo am njariñ fexe ba lépp looy def nga teg ko ci digal kon alhamdulilahi rabbil alamin wér nañu ne mbooleem li nga xam ne def nañ ko ci ci ay addiya ci ay xitma muy góor ñi ak soxna yi nga xam ne ñoom ñu ngi woon ci liggéey bi ak góor ñi nga xam ne ñoom it ñu ngi woon ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom it génnewoon nañ seeni addiya def ko ci ak ña nga xam ne it lépp lañ boole dañoo boole joxe seen addiya ak nekk ci xidma bi ak ñi nga xam ne ñoo doon jàng alxuraan bi ñu doon jàng xasiida yi moo xam muy njàngum yaru bi wala muy njàngum biral bi ñoom ñëpp rek seen taxawaay mat na jekk na rafet na am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax mbokki taalibe yi itam ñoom ñëpp bég nañ ci boroom bis bi itam bég na ci te nangul na leen da ngeen xam ne lépp lu ngeen fi def rek Serigne Touba nangul na leen dëppoo na itam ak mbégtim rasulullahi dëppoo na it ak mbégtim suñu borom subhanahu wa taala muridullahi nag loolu rek moo war a nekk bëgg-bëggam moo war a nekk càkkutéefam loo xam ne daf lay yéege loolu rek moom nga am ndax li nga xam ne sa alal la yoo xam ne danga koy jël di ko def ci sa àdduna su àdduna fu àdduna yem rek foofa lay yem ak yow fu sa dund yem foofa lay yem ak yow dara du la ci topp te mën naa am sax boo ca defee ay safaan safaan ya topp la la nga yëngutu itam di ko sonn loola itam di ko ñaq moom it lay tax mu amal la njëriñ mooy nga sonn ko ci yàlla waaye bu dul loolu mën naa am sax fitna toppe la ci ndax su fekkee da nga doon sonn ci ñu ko suñu borom kon sa kàttan bii ak sa doole jii na nga fexe ba di ci jaamu sa borom te di ko ci liggéeyal am am bala yàlla joxe itam lu mu mën a toll muy néew ak a bari na nga fexe ba di ci liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala saa buñ la wooyee nga wuyu ñu woo la nga wuyu am na solo lool. suñ la digalee nga def buñ la teree nga baax ku bëgg lu baax te di ko sàkk loolu mooy doon aw dox yi nag te loolu nag ñu ngi leen koy seedeel bu baax ñu ngi leen koy seedeel bu baax a baax a baax kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant suñu borom bu baax a baax gis nañ bu baax pas-pas ak pëstéef bi nga xam ne gën ngeen koo taxawee bu baax a baax a baax ci màggal parce que jékk yéen a ngi ci doon taxaw waaye màggalu ren jii ngeen ci yokk seen pas-pas ak seen pëstéef ak seen yéene ak itam li ngeen ci taxawee bu baax a baax a baax ci def ci seeni addiya ak def ci seeni xitma moo xam muy góor ñi moo xam muy soxna yi loolu moom gën naa fis gën naa feeñ bu baax a baax a baax gis nañu ko mbokki taalibe bi yëpp gis nañu ko borom bis bi gis na ko jëf ju baax rek moo am solo ndax du réer boo dee dem ci sa bàmmeel da nga koy yóbbaale te su ëllëgee boo dekkee itam yaa ngi moom yéenay ànd kon alhamdulilahi rabbil alamin lépp rek ñu xam ne suñ borom nangu na ko ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam suñu boroom nangu na lépp nangu ko sell bu rafet ndax musal na leen ci déggital musal na leen ci ngistal musal na leen ci naw jëf ba nga xam ne seeni jëf ànd na ak ixlaas kon lépp suñu boroom nangu na ko kon ñu sant yàlla bu baax a baax a baax tey gën a góorgóorlu bu baax a baax xam ne yow doomu aadama jamono bu nekk yaa ngi gën a sori àdduna ji yaa ngi gën a sori àdduna ji nga nekk te yaa ngi gën a jege àllaaxira ga nga jëm ngal la na ngay góorgóorlu foo toll ragal taggu ragal ragal naa ñëw kenn wala bëgg taggu kenn bu mu la tax a sàggane sa bàmmeel na nga am fulla ju mat sëkk ak fayda ju mat sëkk ci sa bopp na nga bëgg sa bopp na nga yërëm sa bopp na nga jàppale sa bopp na nga dimbale sa bopp na nga toppatoo sa bopp fii ci àddina laataa bis ba nga xam ne su dikkee bàyyi dafay daw doomam doom di fa daw yaayam mag di fa daw rakkam nijaay dafa daw jarbaatam mbokk dafa daw mbokkam toppatool sa bopp te nga góorgóorlu ci jamono ji nga xam ne góorgóorlu ci jafe na lool ndax soo amul fulla amoo fayda doo ko man ndax suñu la gisee ngay jàpp mbaa ñu gis na ngay julli mbaa ñu gis na ngay jàng alxuraan ak xasiida mbaa nga yor sukurus di wax astaxfirullah wala laa ilaha illa allahu la nga naan allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu daal dina yow kat da ngay wedd Serigne Touba noonu Serigne Touba nga da ngaa bañ Serigne Touba di la xulleeku ay bët ak di la rox ak di la xeeru loolu mooy dëgg dëgg li nga xam ne mooy aaxiru samaan nga xam ne boo amul fulla ci sa bopp amoo fayda ci sa bopp doo jaamu yàlla sa boroom te doo ko sàbbaat yàlla moo la bind yàlla moo la bind yàlla moo la bind suñu boroom ba mu lay bind tàmbuleewu ko sax ci saw yaram waaye ci sax wuu la ko tàmbulee foofee ca aras foofee nga xam ne wenn tur du fa jib bu dul turu suñu boroom subhaanahu wa taala foofee nga xam ne gàngu nekk aras googee day jaay bi di ko sàbbaal ak xalam ak lawhil mahfuus foofee nga xam ne kursi yu ak malaayika yi ko wër ñoom ñëpp aw turam la ñuy sàbbaal foofee nga xam ne garabu sidratul muntaha googee fa nekk ma nga ne fa jonn taxaw te wenn xob du ca dagg wenn xob du ca ruus te xob yëpp day àndandoo di sàbbaal foofee nga xam ne ay malaayika ñoo sàtte wër ko ba leen yàlla bindee ba tey mosuñu faa nekk lenn lu dul di sàbbaal foofee nga xam ne dexu kaw saraa nga ko wër di xaar ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla tey sàbbaal foofee nga xam ne àjjana ma nga ko wër def juróom-ñaari kër te kenn du ca dugg te nekkoo asgor asgor mooy koo xam ne dafa mucc ci bakkan mucc ci bànneex mucc ci àdduna mucc ci saytaane ëllëg ñooñu ñoom ñooy terloo fi teraangay aljanna yi gox yu sell yooyu nga xam ne ñoo nekk ci diiwaani mëlëkoot asamaan su nekk ëpp na adduna ba nga xam ne mi ngi mel ni boo jëloon ab jaaro teg ko ci adduna ni mu koy ëppee asamaan su nekk ëppee na noonu adduna te dafa fees dell ak ay malaayika yoo xam ne dañuy jaamu seen boroom ak di ko sàbbaal juróom-ñaari suuf yoo xam ne mi ngi ci suñu ron fees dell ak ay malaayika yuy jaamu seen boroom ak di ko sàbbal ba ba ngay dem ca suufu su juróom-ñaareel sa ca digg boobee nga xam ne ca la sajaratu sa xoom nekk ak alluwoy si jiil da nga xam ne bind nañ ci tur képp ko nar a texee ak sabab ba koy tax a texee ci juróom-ñaari xeeti sawara ya nga xam ne ña ngi ca suufus juróom-ñaareel sa ñu daaj ca ay gétt yoo xam ne ëllëg ña nga ca takk ay ceen yoo xam ne ca la ñuy jëng way bàkkaar yi ak ña nga xam ne ñooy jëf ñaawteef yi te duñu ko tuub mbugalum suñu borom ma nga xam ne juumul kenn kenn kenn kenn ku yàlla bind suñu borom wax rasulullaahi ne ko neel waxal ne leen man nii sax day bu ma maa ngi bu bu bu ma bu maa ngi ragal ne bu ma moyee suñ borom ëllëg danaa jë danaa dajee mbugalam qul inni aqaafu in xasaytu rabbi asaaba yawmin xasiimin man mii day maa ngi ragal ne su ma moyee sama borom ëllëg danaa dajee mbugalam suñu borom subhaanahu wa taala yàlla moo gën a màgg lépp moo gën a kawe lépp moom képp mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom moom lañu war a jaamu waree suta jaamu kurul moom moom lañu war a sàbbaal te waree suta sàbbaal kurul moom ci ay ndigal bi tam ci lañu war di wéy ay tere nit ñu di ko moytali mooy ki nga xam ne moo ñu bind te moo ñu melal ci suñu biir way jur moom ci coobareem ci nga nekk góor baa ngay nekk jigéen ci coobareem ci ngay dunde baa ngay faatu ci sa ndaw ci coobareem ci ngay amee mbaa ngay ñàkk ci coobareem ci ngay bige mbaa nga nekk ci njàqare xamal ni bis boo xëy ree ca su neexoon suñ boroom reejoo jee di ay jooy bis boo xëy jooy ca su neexoon suñ boroom jooyooyee di ay ree lépp moo ko yor ci loxoom mooy def mooy dindi ci coobareem kon kooku rek mooy yàlla te kenn du yàlla ko dul moom loolu asamaan xam na ko suuf xam na ko sahidallahu yàlla ci boppam seede na ne lay mbir tey mbir tey dëgg te wér te wóor mooy moom rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom malaayka yi ci asamaan ñoom ñëpp seede nañ te boroom xam-xam yëpp ci xaarifiina billaahi yeeg anbiyaa yeeg awliyaa yeeg saalihiina yi ñoom ñëpp nangu nañ loolu te saxal nañ ko ci wéral nañ kon nañu jaamu suñ borom te bàyyi caaxaan yi rasulullahi la muy màgg màgg màgg ndawul suñ borom rek la loo xam ne nii yónni na sax njëkk ko njëkk mu ko yónni sax am na ñeneen ñu yónni woon doon na sax wax naan wa maa muhammadun muhammad mii kat doolu lenn lu dul saa ndaw dong te laataa ma ko yónni sax njëkkoon na maa yónni ñeneen waaw kon ndax su deexee wala ñu rey ko day tax ngeen di génn ci li ngeen nekkoon daal di wax ne déedéet loolu waru leen ak dundam ak ak faatoom ñooyam sama ndaw rekk la di juutule sama yónneen bu fekkee faatu na mbaa ñu rey ko itam loolu bu mu leen tax ngeen di arrière mbaa ngeen di dellu ginnaaw jàpp leen ci samay ndigal tegal sax ci samay tere bu dul loolu da ngeen di perte Sëriñ Tuubaa itam lim doon wax ñëpp di ko dégg mooy Abdullaahi la di jaamu yàlla suñu borom di xaadimu rasuulillaahi di koo xam ne day liggéeyal rasuulillaahi ci gën a dundal alquran ak gën a dundal sunna ak gën a dundal li nga xam ne moom mooy lislaam yoonu murid bii nga xam ne sos na ko itam mi ngi ko doonul sax loo xam ne da koo sos ndax murid lu ñu fi fekk la li nga xam ne ne lañ fi fekk lislaam muridut lu ñu fi fekk la muridullaahi mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg suñu borom te namm suñu borom ñooñu la woon nañu ñëw mu yóbbu leen ci seen borom buñ ko wuyu jëyee itam dafa leen a taxaw ba def ci ñoom li nga xam ne moom mooy himma te loolu mooy bëgg yàlla ku wér koo xam ne dara duutu ko fay yàgg na ma koo leeral yàgg naa leeral lan mooy himma ndax mooy li nga xam ne kenn mënut a nekk murid saadiq te amoo ba loola matee ca ñoom mu teg leen ci yoonu tër bi teg leen ci yoonu tarxiya daf leen daan wax dee leen jàpp dee leen dee leen takkoo ak set dee leen takkoo ak laab dee leen takkoo xet bu sell dee leen julli julli juróom yi dee leen def naafila yi dee leen jàng alxuraan dee leen jàng ci xasiida yi werdu wii nga xam ne moom la ñuy def werdu la woo xam ne rasulullah moo ko jox ca gànnaar ne ko dee ko jëfandikoo yaa képp ko aju ci yow ñi nga xam ne ñoom ñoo jaayante woon ak moom daf leen daan jox ay sikkar am na ñoo xam ne daf leen daan digal ñuy sikkar bismillahi rahmaani rahim am ñoo xam ne laa ilaha illallahu la leen daan digal am ñoo xam ne xul huwallahu la leen daan digal noonu ne la murid yu njëkk ya meloon nga xam ne dañoo boole woon di jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér ak nangoo liggéey ak maanu sëriñ bi itam ñett yooyu fu mu toll moom la daan dénkante moom la daan dénkaane sax ci jaamu yàlla sax ci nangoo liggéey ak ak maandu jaamu yàlla gi mooy lépp li nga xam ne yàlla digle na ko saa yu waxtoom jotee la nga ca daal di jublu te loo ca man nga def ko ci moo xam muy julli moo xam muy woor moo xam muy asaka moo xam muy aj leneen la ca tege mooy na nga nangoo liggéey na nga fàggu loolu liggéey bu lew nga nekk ca di ca liggéey loolu dana la sàmm dana la aar leneen la ca tege mooy na nga maandu bul tooñ sa moroom bul tooñ sa borom bul wax nit loo ko wër ta wax bul def nit loo ko wër ta def ñett yooyu mooy yi nga xam ne ci la Serigne Touba yar taalibe yépp xamal leen ak yar xamal leen ay teggin xamal leen ak yiw ci wax ak jëf loolu moom mooy Serigne Touba waaye nag jamono aaxiru samaan ci boppam moom moo demee noo xam ne day wëlbati lépp lu taxawal melal ko neneen tudde ko neneen jamono la joo xam ne soo ci amul fulla ju mat sëkk amoo ci fayda ju mat sëkk da nga tàbbi safara wala yaasu billah ndax li feeg yaa ngi déglu waxi nit ñi mbaa nga leen di xool mbaa nga leen di toppatoo doo mën a jëm fenn ndax nit ñi li ëpp ci ñoom jëmuñu fenn te it bëgguñu ko jëm fenn kon yow yaay am sa fullay bopp ak sa fayday bopp xam ne ab murit nga ab taalibe nga bu jaayanteeg Serigne Touba fas yéene di wuyu ci ay ndigalam di moytu di ko ay tere ndigali Serigne bi nag leer na nañ ñëpp mi ngi ñu bind mu leer naññi wax na ko ñu dégg jëf na ko ñu gis bind na ko ba fi kon loolu moom mooy ndigal yi sëriñ bi abdullahi la xaadimu rasulillahi la sunna la doon diggal dundal ak di koy di ko di koy yeesal alquranul karim ak sunna ak lislaam kon nañ jàpp ci yooyu nañ jàpp ci alquran nañ jàpp ci sunna nañ jàpp ci lislaam jaamu bi yàlla la bu ko doon wéetal kon nañ jàpp ci jaamu yàlla ak wéetal ko te bañ koo bokkaale lenn bañ koo bokkaale kenn sëriñ Touba néew la yemal ci man dafa lay joxuñ rasulullahi rasulullahi itam néew la yemal ci man dafa lay joxuñ suñu borom suñu borom nag mooy ki nga xam ne doo ko romb jëm fenn subhanahu wa taala moom ngay xam ne moom mooy yàlla ci boppam ji la bind te moom la nga nangu loolu ci sa xol gëm ko ci sa xol wéetal ko di ko jaamu ak di ko sàbbaal di sàkku yërmandeem ak sàkku njéggalam ak sàkku yu xéewalam boo dee jéggulu nga jéggulu ko boo dee ñaan nga ñaan ko boo dee sant itam nga sant ko boo ko santee mu dolli la kon loolu ñi fi jiitu woon ñu baax ñi fi jiitu woon ci yoon woowu ci lañ nekkoon ci lañ ci lañ ñote ki ñuy jaamu yàlla la waaye du keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala ki ñuy jaamu yàlla la waaye du keneen ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala képp koo xam ne jaamu nga lu dul lu dul lu dul lu dul lu dul yàlla képp koo xam ne jaamu nga ku dul yàlla ëllëg yowmal xiyaam da nga ko réccu da nga ko réccu loolu lu matal lu am solo la amul kenn koo xam ne suñ boroom dana ko dikkee amul kenn koo xam ne suñ boroom dana ko dikkee xam-xam bu set bu leer naññ muy wëlbatikuwaat di wax nit ñi naan leen nekk leen di ma jaamu walit ngeen di jaamu yàlla loolu amul fenn waaw amul fenn ñi nga xam ne suñ boroom dikk na leen xam-xam bu set bicc bu leer naññ moo xam ñuy ëmb yaaw di ay mor wala ñuy ay morselin wala ñuy ay wàlli yu kaamil dañuy doon ñuy jaamu suñ boroom di ko wéetal di topp sunna si yenant bi di jaamuloo nit ñi yàlla di leen toppaloo sunna si yenant bi di leen fonkloo seen jikko yu baax ak di leen fonkloo seen jikko yu rafet di leen wax loo lañ war a wax ak di leen jëf loo lañ war a jëf waaye loola neex waxal loola neex defal dara dara la ci fekk loolu yàlla waxu ko yenant bi waxu ko sëriñ Tuubaa waxu murit day wéy ci ndigal sëriñ bi nag li mu bëgg lépp weesuwut la rasulullahi bëgg weesuwut la suñ boroom bëgg lam ñu digal lépp ak lam ñu tere weesuwut li ñu rasulullahi digal ak li ñu suñu boroom digal kon fuñ toll nañ ciy góorgóorlu bu baax a baax waa koy baax na kon jërëgéen jëf taalal loxo yi di ñaan bismillah إياك
waaw waaw صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا waaw الضالين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه ولسانه من خلق آمين.
واسلك لنا
waaw
دمر كل هداية قلوبنا حول الوصول إلى آمين.
آمين
waaw Amin.